Yeah. toujours dans votre acte du jour de ce 9 septembre 2024 suñ fa vous dañuy dem ci affaire commissaire Keita ginnaw biñ ko convoqué sous ordre du procureur def ko garde à vue jébbal ko parquet ginnaw lolou mu bénéficié au retour de parquet tay la wara a ki nga xamanteni moy le procureur de la république pour que mu édifier ko ci sorom qui nak nga xamanteni moy force d'Olel askan bi mo daldi bind Human Rights Watch pour dénoncer li nga xamanteni ay restrictions la jëmale ko dal ci walu liberté fi ci Sénégal ginnaw niveau régime bi lolou lañu constater ci ñoom mu doon loo xamante ni daal ginnaaw seen bind bi dañu war a atterrir euh, atterrir attention ñi nga xamante ni daal mooy euh, human rights jëmale ko ci situation bu alarmante boo xamante ni mi ngi xew actuellement fii ci Sénégal depuis accession au pouvoir ki nga xamante ni mooy nouveau régime bi ki ko dirigé di le président de la République son excellence Bassirou Diomaye Faye ak kii di premier ministre dañu sukkandiku daal daal di gis ay recrudescence jëmale ko daal yoo xamante ni dafa préoccupé lépp loo xamante ni ay restrictions la jëmale ko daal ci liberté yoo xamante ni yu fondamentaux la notamment lii di liberté d'expression kenn sañatul wax sa xalaat récemment dal ki di commissaire Keita ginnaaw buñ ko arrêté jëmale ko dal ci sous accusation yo yoo diffusion de fausses nouvelles don na incident bo xamante da dafa don lu révélateur jëmale ko ci ben tendance bu inquiéter d'aller di réprimer les plus voix bo xamante da nga dissidente di restreindre lépp lo xamante dañ ko sukkandiku ci liberté de la presse arrestation qui nga xamante moy commissaire Keita. don ben acteur clé jëmale ko dal ci domaine li nga xamante moy sécurité civile ak préservation jëmale ko ci droits humains ak justice fii ci Sénégal dafa nuru tey dafa inscrire jëmale ko daal ci benn campagne boo xamante ni moo gën a yaatu visé daal di étouffer lépp loo xamante ni daal forme de critique la jëmale ko daal ci régime bu nekk en place képp kuy autorité sénégalais dafa mel ni tey dañuy utiliser ay accusations jëmale ko ci division de fausses nouvelles comme prétexte pour museler ñi nga xamante ni mooy journalistes yi activistes yi ak citoyens yi daal di wax li nga xamante ni mooy seen opinion contraire ak li nga xamante ni mooy gouvernement bi jëmale ko ci yoon benn weer yoo xamante ni exercice bi nga xamante ni régime bu bees bi def nañ ko jamono ji ñi ngi menacé dal di intimider jëmale dal di arrêté ay syndicalistes ay religieux ak ay activistes ba ci ay journalistes yo xamanteni tay tey dañu doon ay nit yo xamanteni tay tey dañu leen tenir jëmale leen dal ci porter ben voix bu discordante jaarale ko ci ben situation bo xamanteni menace la bo xamanteni da fay don lu grave jëmale ko ci liberté d'expression ak démocratie jëmale ko fi suñu rew lepp lo xamanteni ni ñi nga xamanteni ni ñu ngi koy exhorter moy ñu examiner ay prêts jëmale ko ci développement jaarale ko dal ci répression ak li nga xamanteni moy gouvernement sénégalais pour que ñu reste respecté lépp loo xamante ni ay normes internationales la en matière jëmale ko ci ay droits humains lii di Sénégal dafa yàgg percevoir li nga xamante ni daal mooy benn bastion de stabilité jaarale ko ci Afrique de l'Ouest mu nuru tey nag loo xamante ni dañ koy compromettre jëmale ko daal ci ay valeurs fondamentales yoo xamante ni dafa sukkandiku ci wàllu liberté ak justice lépp daal loo xamante ni ñu ngi koy remercier par avance mooy attention jëmale ko ci porter lii nga xamante ni daal mooy question cruciale bi jëmale ko ci intervention yoo xamante ni mën na jouer benn rôle clé jëmale ko ci protection des droits humains ak li nga xamante ni mooy préservation des libertés fondamentales fondamentaux fi ci Sénégal ginnaw bi ñu resté seen disposition ñom ak bép information bu complémentaire ñi ngi prier dal ñu agréé li nga xamante dal moy seen demande ki ko xamle nak di Amadou Moustapha Gay force dolel askan bi en tout cas bind nañ dal li di Human Rights ci li nga xamante dal nouvelle revue bu bees bi ñu koy def dem ay menaces intimidation ak pression dal di bafouer li nga xamante moy liberté d'expression